waaw li xaw Grand Dakar mooy dañoo gis ni euh, boo xoolee chiffres yi nga xam ne am na grande car li lay njëkk a mooy le nombre de transferts o sait très bien que peut-être le transfert c'est autorisé par la loi mais su ñu demee ba le nombre de transferts ëpp le nombre de nouvelle inscriptions dafay xaw a doy waar sunu représentants yi signalé nañ ñu ay anomalies yëpp mais bi ci gën a doy mooy démb dañu gis li nga xam ne mooy madame la ministre de la femme Ndèye Saly Diop Dieng di responsable APR foofu am ay groupement de femmes yoo xam ne tey ñu ngi leen jëlee ba Mbambilor ñu ngi jëlee leen yëmbal gis nañu vidéo yi ñu ñëw foofu dikk leen ay financement wutal leen ay certificat de résidence ñu bëgg a ñëw di voter foofu bi coow li amee nag sunu ay représentants signalé ko ñu gis ni presse ba génne leen mais ñu gis ni ñu déployer force de police foofu waaye li ci gën a doy waar ñu indi fa oto boo xam ne tey kuy inscrit bu dee def nga yoon soxla woon ñu lay encadré mais oto moo lay wàcce ay gros bras encadré la nga dugg inscrit bu fekkee nit kuy dem rek pour accomplir devoiram inscrit teg ko ci yoon lan moo ci jar euh, jël ay gros ñu lay accompagner ba nga dugg ci biir mais lan moo ci jaral ñu indi force de police ñu taxaw foofu waaye ñuy xoqatal sunu ay représentant ba tere leen ñu def seen liggéey sereinement loolu moo waral tey ji di ñu xëyee ñun waa coalition yeewu askan wi ànd ak Barthélemy Diaz bu taxawu Sénégal ànd ak Abbas Fall bu Pastef ak yeneen camarades ñu dem Grand Dakar rappeler au préfet que sunu représentant bi du lu ñuy demander c'est une exigence dafa war a nekk garde yi ñu gis ni tey jii ni seen leader googu di Barthélemy Diaz def na ay mise en garde ci préfet bi ak sous préfet bi ñoom lan moo ci seen degré d'implication par rapport waaw mais xam nga tey bu ñu demee ba benn préfet naan représentant bi amoo droit laaj amoo droit poser question yow il est la pour suivre la régularité des observations bu ñu demee ba ñuy menacer ay représentants di leen génn ci biti mais ñun moo tax ñu dem ni ko ñaanuñu représentant bi dañu topp procédure defal ko këyit yóbbu ko ñu enregistré ko donc légalement il doit être dans la commission. ñun dañu sàmmante ak yoon parce que tey représentant bi toog ci commune bu gisee ay nit ñoo xam ne dëkkuñu Grand Dakar ñu laaj leen ñu ne ñoom ñu ngi jóge ba yëmbal te commune bu ne ñëpp dëkk ñooy fal seen maire. naka la ay nit ñu dëkk yëmbal ay ay ginnaaw raay ay mbambiloor ñëw war a fal meeru Grand Dakar meeru Grand Dakar kañ ña Grand Dakar ñoo ko war a fal mais loolu bi ko suñu représentant gisee interpellé na leen ñu ne ko amoo droit interpellé kenn amoo droit laaj leen mais su ma demee ci commission amoo droit laaj amoo droit interpellé ken lan moo fay sama rôle donc loolu moo waral ñu dem tey rappelé ko ni suñu représentants yi dinañu def seen liggéey ni ko yoon santaane te duñu nangu kenn di leen xooxatal duñu nangu kenn di leen génne dañu leen di bàyyi ñu toog ci commission bi te képp koo xam ne dañu lay jëli ci ay de manière frauduleuse bëgg la transférer nous allons nous organiser pour faire